hamdi wa sukri liman kulli bihi saara law ridan duna shuqtin inda sarsara mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen nuyu di ànd ak yéen seen xibaar ñeel ziar sarsara édition 2021 hamdi wa liman kulli bihi saara law ridan duna shuqtin inda sarsara mbokk yi la ci gën a fës nag fédération bi nga xam ne moom moo yore liggéey bi fii ci diwaanu Mauritanie ànd ak nag Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtada toogal fii xalif général kul Mourit ñoom nag euh, daje woon nañ kër Serigne Touba daal di fas yéene taxaw lépp loo xam ne jëm na ci wàllu organisation bi édition ren bi euh, nun koy waajalee ak fan ca ak lan ca namm ci diwaan bi ñoom ñëpp nag jàpp nañ ne mbégte mu yaatu lañ ci jëree te taw feex rek lañ ci gis nag ba tax ñu jàpp ko ci diir bu gàtt daal koy amal ci diwaanu Mauritanie Serigne Madiop Diop di jëwriñ fédération bi yëkkati na ci ay kàddu ñu déglu ko. ngi nag moom wax dëgg yàlla jàppoon nañ sax ni màggal gi du mën a am ndax fii tawat ji toll muy Covid bi waaye mbirum sëñ Tuubaa moom tàmbaleel rek sëñ Tuubaa moom mooy yegalal boppam. ndax gis nañ ci tawféex goo xamante ni jéggi na suñu suñu kawe na daal suñu njort. waxumal dara waa dëkk bi taxawaay bi ñu ci taxaw ni mu ni mu rafetee ak maanaam yéene yi ñu ci àndal rawatina waa Sénégal tamit seen taxawaay ku mel ni soxna maam Issa Mbacké mënuñoo tudd Sar Sara mooy te jiitaluñ ko ci ndax depuis ba Sar Sara ba léegi liggéey bi yëpp dañ ko ànd ak moom muy jàmbaar yoo xamante ni bii wax dëgg yàlla maanaam jàmbaar tamit foo ko takkee rek wees na ko moom soxna si moom dañ ko ñaanal mu yàgg fi te wér coppite yi ci am mooy d'ailleurs fi ñu daan defee musée bi exposition bi ñu daan def ren yàlla dogal dañoo changé barab bi ko doon defee centre culturel raisonnable Mauritanie Nouakchott lañ koy defee mais tëjte bi maanaam fermeture bi ñu fas yéene ko amale palais de congrès le 26 ci kàttanu yàlla suñu borom. ak maanaam dem bi ñu daan dem Sarsara ku ne xam na ni dañ fi daan jógee ay 18 heures jëm suuf bu ñu daan dem daanaka ci guddi gi dañ daan daw ak maanaam fii situation dëkk bi toll ren ñu fas ko changé defe naa 16 heures daal normalement war na fekk oto yi commencé dem. su a a jàll nit ñi gën xam. pour ñu gën a wàcc ci loolu pour bañ a am benn jafe-jafe boo xam ci yoon bi lay doon réew mi ñu nekk ku ne xam ne réewum jullit la te umpale wuñu Serigne Touba Serigne Touba sax du ko ñuy xam waaye Mauritanie yàlla da leen defal loo xamante ci Serigne Touba yeneen par rapport ak yeneen yi xëy na ñoom niñ cee avantage biñ ci am bokkul ak yeneen dëkk yi ba tax na yi ñun suñu programme yi ñuy am yëpp dañ leen ci woo ñuy ñëw ñëw googu ñuy ñëw di ñu fekk si ci suñuy activités yi ñuy def day tax lu bari buñ ko bëggee ñoom dañ ñu koy yombalal yàlla dogal na tamit ren kilifa yi nekk Touba yëg bis bi ñëw ku mel ni Galas mu sëñ Abdou ñëw na ku mel ni sëñ am Ahmedou Badi mu sëñ Fallou ñëw na maanaam kilifa yu bëri mënuñoo lim bi yëpp daal kilifa yi bay bàyyi ko nañ Sénégal sëriñ Bassirou Abdou Khadir nañ day ñëw ci palais de congrès bi nag te ñoom ñëpp bis bi leen yëkkati kon daal bis sëñ Massamba bi nañ xam ne daal gàccee ngaalaama daal ndortele daal dal na xel yàlla nañ mottale lépp nag lii ci barke sëñ Tuubaa Maam Serap te lépp luñ ci def tamit yàlla nañ ci dëppoo ngërëmal sëñ Tuubaa mbokk yi gannaaw kàddu yi sëriñ Madiop Diop moom di jëwrin bi dañuy ànd ak yéen ci li ci organisation ba nga xam ne moom mooy am fële ca Sarsara te digganteem ak Nouakchott toll ci téeméeri kilomètre ak juróom-ñett fukk nga xam ne ni nag mbokki taalibe yi war nañ fee bawoo nag lu tollook ñeenti waxtu ndax ren danoo bëgg daal di teel àgg ca bërëb ba waaye lépp loo xam ne jëm na ci wàllu organisation ba foofu le commission d'organisation bi yabal na équipe niki altine bi ñu weesu ngir ñu mën a dalal gan yi foofulee ca diwaan boobule ñu ànd ak Serigne Moustapha saar mi nga xam ne moom mooy jëwriñ organisation bi. lu tolloog kii euh, fanweeri daaya ak juróom-ñett ñuy liggéey ñoom ci ni ñu war a tëlee Sarsara ndax Sarsara dafa di mbir moo xamante ni euh, mbir mu am doole daal moo xamante ni liggéeyam yombul noonu ndax fële Sarsara euh, yow bu fekkente ni mos nga fa dem xam nga ni Sarsara sori na waaw diggante fii dafa naa di nga daw. cent cent euh, quarante kilomètres jàdd suuf daw trente neuf kilomètres soo ko egg ci Sarsara te defe naa Sarsara tamit amul benn dëkk bu ko wër dëkk bi ko gën a jege mooy Matam Moulana quinze kilomètres la te foofu àll la euh, àll la kon xam nga foofu moom euh, lépp lu ñu fay defee rek defe naa laaj na liggéey boo xam te ni préparation bu am solo lay doon si la ñu nag ànd ak waa organisation yëpp ak daayira yi ñëpp jàpp si si jëwriñ ñu commencé liggéey bi commencé liggéey bi maanaam liggéey bi dëggantaan ñu ngi ko commencé euh, lundi bi passé waa jàkka ji dem nañ jiitu ji euh, Baay Faal yi tamit nga xamante ni foofu mbooloo ñoo fay daje dem nañu euh, démb ñoom tamit ndax foofu àll la te désert la amul amul amul ker Baay Faal yi ñoo fay nekk ñooy yóbbu xayma yi xayma yi dina def naa dinañ fa yóbbu lu mat 40 xayma tàllal ko amul ndox dëkk bi gën a jege 3 kilomètres la fa la ñuy dem rooti ji te xam nga mbooloo loo loo xamante ne defe naa war nañu am ren ci ñi jóge Sénégal rek war na mat ay plus de 700 700 euh, et quelques personnes defe naa loolu lañ mën a loolu lañ jot si liñ jotagul si li nga xam ne moom lañ wax daal ne moom lañ amagul xam nga ñooñu tamit mbooloo fu ñuy daje te foofu desal la àll la seen liggéey du du du yomba daal waaw léegi ba tax na si la waa comité de organisation bi depuis boobu ba léegi ñu nga sa fële ca àll ba sa sar saar waaw ñu nga fa waaw ñu nga fa di ut xayma yi di tax. ku wax cant ba tey rek xam ngeen ne lépp lu jëm ci wàllu bernde dañu daal di yemb rek ak commission bi nga xam ne moom mooy wàllu cuisine bi ki nga xam ne moom mooy Pape Wade di jiite eh, waañ bi nag moom nag nee na eh, ci diirub nag fan yi nga xam ne ni taalibe yi daan ko fi def muy eh, daayira yi jógee Sénégal te nekk ay daayira yu wuute ñoom nag ñoom ñëpp fas yéene jox bernde ba mu mat sëkk te loo xam ne du yéexandi ndax lépp rek fàggu nañ ko ngir taalibe yi daal di ñu déglu Pape Wade mi nga xam ne moom moo yore seen kàddu. waaw loolu moom pare nañ ci gan yi nga xam ni ñooy jege Sénégal yëpp euh, pare nañ ko pour bernde leen rek lépp a ngi fi ci darajay sëñ Sidi mi nga xamee ni mooy sunu sëriñ nekk fii ci gànnaar euh, di ku tedd ki saa su ne noonu la ñuy liggéey moom di préparer ay xéewal yoo nga xamee ni jëmeekul ko fenn fudul ci gan yi nga xam ni mooy ñi nga xam ni ñooy jóge Touba ak waa Dakar di soxna Issa Mbacké di sunub sëriñ. di ko jox waayam bu baax a baax moom muy jógee foofu ñoom ñëpp ñoo leen di teral ci ci ci ci ndigalu Serigne Sidi ak sëñ Bas Amar ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñoo leen di teral ci nga xamee ni ñoo nekk fii ci gànnaar. bernde yi comme comme comme comme comme waa Sénégal ni ñu koy defee rek saa su ne saa suñ ñëwee rek xéwal gun yaakaar rek danañ ko fi fekk ci kàttanu suñu borom ndax saa su ne rek ci la nekk ñun saa su ne ñu ngi ci di ci góorgóorlu bu baax a baax di ko préparer saa su ne ndax suñuy gan bëgguñu ñu mer ndax bernde moom. ku nekk xam nañ lu ci maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag saa su ne ci loolu la ñu nekk heure dana fekk mu pare waaye parfois rek euh, toog nag moo xaw a demee noonu waaye saa su ñu ngi ñu ngi góorgóorlu kémtulaay kattan ñu ngi ko ciy def pour muy teel di pare saa su mi ngi pare incha allah moom ndugg yi yëpp dafa seer waaye Serigne tubaa moom soo koy liggéey rek saa su rek day yomb ci yow ndax na doon dëgg ci yow rek nga dëggu ni yow mii Serigne Touba moo tax ngay liggéey saa su ne moo tax ñun dañuy roy si sunu sëriñ rek maam Cheikh Ibrahima Fall waaw ah, dañ ciy roy. gannaaw tànki nemmeeku yoo xam ne defoon na ko ci dal yi nag moom Serigne Sidi Mbacke dem na seeti nag ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, daayira yi ci dal yi nga xam ne ñoom la nekk ci diwaan Nouakchott moom mooy euh, délégation yi jógee ci Sénégal muy bu Dakar ak ci Touba dañuy ànd rek ci ñaari délégation yooyu nga xam ne euh, ñi yore seen kàddu moom mooy Serigne Bassirou Amar ak Cheikh Abdoulaye Dieye mbégte mi nga xam ne jëlee nañ ko ci tànk yi nga xam ne sëriñ bi ñëw na seet si leen ngir nag waajal bés bile. Ah, am nañu yéene te fas nañu fas yéene nga ñaanal ci yéene jooju du ñu wax lu ñaaw te du ñu ko def lu fekk ñi ngi ànd ak suñu xel bu ñu matadik doomu aadama jàppee itam ñu xam ne ak mataji la ñu jéggalu ko yàlla jéggalu ko mbindee fii foofu la ñu fas yéene nekk incha allahu taala am na itam ay ay région yu bees yu bokk ci liggéey bi ak i gox lu mel ni poste Kër Ayib ku ñuy wax sëñ mën a mën a ñëw na daaw ci liggéey bi jiite ma Mafatihul Bichri ànd ak ñun ci yoon wi wax na ni waa kër poste kër ayib ak mbooloo mam fa àndal am nañu yéene dugg ci liggéey sar-sar bi nekk sëlil di jëf mboolem loo xam ñu bokk ci kuréel gi ñu ngi koy jëf ba sax biñ ma joxee seen lettre addiya dañ ñoo nañ la ko jébbal direkt ngir xamal la seen jëf joojule li ci des nag di suñu kanam àddina dara amu ci solo dama leen koy wax liggéey bi ak lu dul moom ci ñaar lay mujjee nañu ñaanal diw parce que faatu na mënta ñàkk gëj nañoo gis diw parce que ma nga ca yeneen kon ñi ngi am yéen ubbi suñu xol xajoo ñëpp di ñaan ñëpp itam yàlla defal leen loolu ñu ànd liggéey yàlla yàlla tàppe xol yi ndax seytaane daa bëri doole te li may wax ni kenn xamul lu doxoon ci diggante Sayyidatina Aïcha ak Seydina Aline kii rakku Yonent bi la kii soxnaam la ñaar ñu war a ànd la cay xew xew ca loolu liggéeyu seytaane kese la kon yàlla ñu yàlla dàqal seytaane te seytaane sëñ Tuubaa rek moo ko të kon lii mooy liggéey bi soxna si nee na mi ngi sant bu baax sëriñ sa Bara ndax moom dafa mel ni li ñuy wax ne mbirum sëriñ bi amul azar dafa feeñ ci mbiram ren mi ndax Sarsara ba ñu ko dalee def ak léegi su ma juumul ñu ngi ci 17e édition yooyu fi jaar yëpp nag bii lañ ci tudde Seex Masamba ñu xam tam cër bi mu am ci ma sàmba yàlla dogal tam édition bi nga xam ne moom lañ tuddee ma Massamba ci lañ njëkk dal fii ci këram kon loolu day wane ne sëñ ma Massamba dafa nangu ab liggéeyam kon nag soxna si nee na mu ngi lay seereel na sant na ko bu baax gërëm na ko te loolu tam da cee am ndigalal sëriñ Moussa moom sëñ ma Massamba mi nga xam ne mooy xalifa ma Massamba ndax daaw bi ñu nekkee fii mujj ci Sarsara di def fii cérémonie bi ci biir cérémonie bi la sëriñ Moussa Massamba wootee laaj soxna si ne ko foo nekk mu ne ko maa ngi fii ci kër sa Fall mu ne ko loolu laa la doon doyee damaa bëgg soo duggatee Mauritanie nga dem kër sa Fall ndax mooy cërub Cheikh Massamba ca Mauritanie. waaye loolu nag moom matale na ko ci anam yëpp ndax mbooloo mi ñu àndal bari na waaye mbooleem quartier bi ñi fi nekk ñëpp di ay rakkam di ay jarbaatam di ay bokkam ñëpp dañoo génn seeni kër bàyyee ñu lépp am na ñoo xam ne sax nanguwuñoo dugg ci néeg yi gan yi nekk ndax bëgg leen a yaatal ci barab yi. te loolu sëñ Tuubaa moo ko wax ci nax ju soo amee gan bernde bi nga koy berndeel ba ci ëpp solo mooy nga yaatalal ko sa kanam te loolu Mbàkke fekk nañ ko fi kon nag ginnaaw yaay suñu kilifa ñun ñëpp mu def teraanga bu toll noonu te sëñ ma sàmba tax mu def ko ci gan ñi kenn amul lenn lu muy soxla ba démb bi ma wooyee sëñ ma Majob dama ne ko ngir oyofal ak xam ne yan bépp ñun ñëpp ko bokk xéwal yi daan bàyyeekoo ci kër sëriñ bi sax mën nañu mën naa dem ci yeneen gan yi ndax dafa mel ni fii lépp jàppandi na kon nag loolu foog ñu sant ko ci ndax ku def lu baax ñu sant la yàlla sunu borom moo ko njëkk a def. ndax Sarsara moom comme nañ ko xamee ñun ñëpp rek day barab boo xam ne yoonu murid yëpp ko moom tey li ciy tawféex mooy bi ma xoolee jotaay bi eh, sëñ tubaa ñàkk gim ñàkk moroom day feeñ ci lépp ndax daa mel ni jotaay bi ñu toog Mamor Jaara mi magi mag mi ngi fi ba ci sëñ Masamba ndax kii sëtu sëtu Jaara la. soxna sii di sutub ma Massamba waaye li ko tàmbalee ci sëñ Modou Moustapha ba ci Cheikh Mamadou Mourtala ñëpp a fi ndax kii sëtub Cheikh Mamadou Moustapha la yow mii sëtub doomi Cheikh Mamadou Mourtala kon la tàmbalee ca magi mag ba ci sëñ Massamba ñëpp a ngi fi li tàmbalee ci Cheikh Mamadou Moustapha ba ci Cheikh Mamadou Mourtala ñëpp a ngi fi kon yoonu murid kenn desut kon nag Mbàkke ñu ngi lay santaat di la gërëmaat di la ñaanal yàlla suñu borom mu defal nu tawféex ba liggéey bi fa nu ko bëgg yóbbu ñu yóbbu ko fa gannaaw nag ba mu defee nag euh, li nga xam ne moom mooy ab tour nag ci délégation yooyu la bawoo ci diwaanu Sénégal ñoom moom nag sii di Mbacke moom Cheikh Mahamadou Mourtala teewal fii xalif général kul murit noonu nag yëkkati na ay kàddu ne kàddu yu mbégte dong la ndax fekk na maanaam taalibe yi ci jàmm te dal yi tamit lépp macha allah ba tax na nag moom nag jëlee na ci mbégte mu yaatu ndax édition bi nga xam ne ni moom mooy édition ren bi de Serigne Massamba Mbacke lañ ko tuddee nga xam ne euh, biñ ko jàppee rek yàggul dara waaye mboolem kilifa yi nga xam ne nekk na Sénégal rek rafetlu nañ ko bu baax a baax boole koo tënk ñi nga xam ne ñooy taalibe yi nekkee fii ci diwaanu Mauritanie ñu déglu Serigne Sidi Mbacke moom Cheikh Mahamadou Mourtala mi nga xam ne moom moo fi teewal xalif général kullu murit ku ne xam ne ne jamono ñu génn jamono yi euh, jafe-jafe yu bari la woon ci wàllu mbas meeg wàllu waaye gis nañ ne bi biñ jàppee bis bi rek euh, li muy gàtt gàtt durée bi teewul ñëpp jekk nañ ba ku ci nekk sax weesu nga fa nga daan toll ci waajtaay yi kon nañ koy sant yàlla bu baax Euh, tey gën a feddali suñu laxasaay rek ak suñu jaayante ci sëñ Tuubaa sëriñ Massamba ku ne xam na ne euh, doy na rek ci buñ doon misaal ay œuvre foo gis kuréelu xasida liggéeyam la moom moo liggéey loolu sëriñ bi da ko da ko junj rek moom moo ko eggale foofu ba kuréelu sëñ Massamba rek ngay dégg lu toll noonu nag ku ko def ba nga xam ne bokk na ci li gën a fës fi mu toll nii euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen taxugum taxawoon ak sëriñ bi ak ngërëmam li mu am ci anam bu bu bu bu bu yéeme bu bu bu raar euh, kooku ñooñu dañ leen a war di roy dañ leen war di fàttaliku ndax ñoom ñooy sunu mag ñi nga xam ne euh, ñooy sunuy royukaay donc looloo looloo tax mu yeyoo ñu tuddee ko bis bii nga xam ne Sëñ Tuubaa lañ koy defal. Euh, ni nga xam ne noonu lañ ko tuddee woon Cheikh Ibra ci at yi weesu ak maam Thierno Birahim di sant bu baax nag ndax moom it wane wane na ci wane na ci barke bu baax sunu borom wane na ci. barkeem bu baax a baax a baax ci ni mbir yi doxee. waaw ndax ñooñu ñooy sunu ñooy sunu ñooy ay salaf li ñuy wax salaf ñooy ñi nga xam ne euh, seeni seeni tànk la ñuy topp mooy ñi toppoon sëriñ bi ba am ngërëmam. ñi liggéeyal yàlla ba yegg ci moom. mbokk yi loolu moom moo nekkoon seen xibaar ñeel ziar Sarsara édition 2021 mu nekkoon nag fii ci diwaan Nouakchott ñi ci àndoon ak yéen doon lépp loo xam ne jëmale na fi ci li nga xam ne moom moo xew-xew bi am fii ci Nouakchott ci caméra bi nag Serigne Fallou Ndoye ci montage bi Bekay Ndiaye ci kaddu gi Sidi Diakhaté yeneen xibaar ñeel ziar Sarsara édition 2021. hamdi wa sukri liman kulli bihi saara law ridan duna shuqtin inda sarsara